bisimila mbokku internet yi dalee nag jàmm animatrice religieuse bi di wuyoo ci turu soxna Fatou Bintou Diop nekk ca télévision Futur Média moom la ñu menacé de mort waaw dañ ko artu ne dañu koy rey lu doy waar benn bëkk néegu bi kilifa mbàkke mbàkke bu siiw lool ci biir réew mi te sant xumma moom moo woo ndaw si di ko artoo ko dankaafu naan ko dinaa la faat moom waa ji nag way takk der yu section de recherche de la gendarmerie bu Colobane mujj nañ ko teg loxo ngir injure ak menace de mort maanaam saaga mbaa kaddu yu ñaaw faat ko wax ne da koy faat nag mooy Seyda Fatou Bintou Diop nekk ca TFM moom waa ji nag li ñu koy joxoñ baraamu tuuma ma nga tàmbalee ca tamxarit ja bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di l'enquête Seyda Fatou Bintou Diop dafa amaloon ab émission nga fan yu jiitu bésu tamxarit ca boobule émission mu invité woon ci ak kàngamu katu diine bu ñu xam loolu muy Alaaji Moustapha Gueye ci seen biiri waxtaan nag làmb nañ ci ay pacc yu baree bari benn ci pàcc yooyu ma nga aju woon ci wàllum aada ak li ñuy woowee bida ñeel wax jëf ak doxalin ci tàmbali ko atub jullit ca noonu ña séqoon wax waxtaan ba joxe digle ngir ñu wottandiku ak a moytu dajaloo ci jamono mbas mi nga xamante ne nii jur na ay jéeya ci àdduna bi moytu te sori lépp loo xamante ne nii dafay yombal lawug doomu jàmboro coronavirus bi waaye ginnaaw wax moom dégg na ko ëpp solo waaj yi xumma moom dafa jàpp ne wax ji ñi ko wax dañ ko jëmale ci kuréelu murit ba tax mu gis ca boppam jël wax ja yenu ko naqar ak métit gu mu am ci wax jooju mu jàpp ne jaarul yoon moom moo tax mu d lali pexe lijjanti ba am numéro soxna si doon animé bi di wuyoo ci turu Seyda Fatou dul loolu yëkkati fa ay kaddu yu doy waar daanaka sax daf ko doon saaga laataa mu koy artu ca mujjantal ga di ko wax ne ko soo ma moytu wulee dinaa jël sama pistolet bi teg ko ci sa bopp bi fëgg la bal nga dee subhaanallah kaddu yi tiital ndaw si muy loxo ko pët pët yi ndax am njàqare ca la waaxu ba ca waa police daal di fay déposer ab plainte contre x maanaam jooytu jubale ci alaxam ndax amul woon ki ko doon dankaa ku mu doon ab ayu bés ginnaaw bi ñu defee ab lanket saytub way takk der ya wane ne waa ji xumma moo def lu ni ba ñu ko jàppee nag soxna si mujj naa retiré plaintam di wax ne moom jëggal na ko dem tàbbi na ci loxo yoon loolu génnewu ko ca mbir maa ngi toppi tànkam ca wàllu yoon ana fu wànnente du mujjee ki gëtam Tactic TV mi ngi leen koy toppal lu ci ruus ci xibaar daan ci dellusiwaat ak yéen ñu ngi leen di jaajëfal